jëm ci am ko waaye moom nag am na yitteeg tama ju ca waaye bu ko ko xaddi la fa zardu nee mbubbi weñ ya duroo ya yowmal xaari bisu kàmb ga ba yonent ba alayhi salaatu wasalaam ak aboubacar làqoo ca kàmb ga boobu mbubbi weñ yi daan ñu daan fegoo xarab noonu lam yasbut saxut lahoo ñeel mbubbu weñ fadlun ngëneel foofa wa kaana nekk alfadlu gañaye ya lil xada xadar na ki ñeel jargoñ ba te ànd ak ñàkk solo jargoñ waaye mooy leen farawale gannaaw yàlla ndax moo lënd buntu kàmb ga noon ya dikk ni i eh, ñu ni nañu dëdd de seen tànk yaa ngi ñu ci biir ne abubakar xaw ma abu jahal ne xanaa da a dof inna fiha la ankabutan aqdamu min milaadi muhammad jargooñ a ngi fi boo xam xanaa moo jëkk juddu moom ñu daal di kon kon ba amul solo waaye ngëneel la ci boobu bis moo ko moo ko moo ko gañe de mbubbi weñ yi gañewu xawsu xaajib ibnu zuraarata itam bi raxnihaa ci tayle ga mu ko tayle la daa kisra fa kisra itma anna la daal qalbuhu xolu kisra mi ma laqiya ci la mu daje wala itma anna qalbuhu moom moom ibnu xaajib maanaam xaajib ibnu suraarat ci xisa ba mooy dafa garanti woon ay bokkam yëpp ci kisra ci ci xew-xew yu gudd daal mu ne ko nag li ngay garante say bokk du du ma maanaam nanguwul d'accord ak moom ci waxu kese te garanté wu ko dara mu ne ko loo may garanté mu dindi fett gi xale gi ni ko am sama xale gi nit ñi reetaan ni waay waay kii moo ñàkk kisraa ni leen laa ay xamu leen arab xamu leen arab yi de fa xalaam gii day addinaak li ci biir jaralu ko ñàkk ko <laughs> ñu des nag laa tax laa taxsa daara zulmi waalam annaha axrabu min jawfi ximaarin xalaq laa taxsa bul tabbi daara zulmi kër gu ñuy tooñe këru tooñ ni ki kër buur yu dëng yi waalam xamal ne annaha ni ki kër googu axrabu mooy gën a ràpp ëllëg min jawfi ximaarin xalaq ci biiru mbaam boo xam ne bu ràpp la dafa junj masal bu ñu naan axlaa min jawfi ayr axlaa min jawfi ayr Ah. axra axlaa moo gën a wéet moom boobu place min jëw fil ayr jëw fil ayr nag am ñu ni mooy biiru mbaam maanaam mbaam dafa bëgg lekk fu mu toll mu ngi kurkuri wut lu mu lekk daanaka foo mu toll day mel ni biir bu xiif la amee looloo tax arab naan axlaa min jëw fil ayr loolu benn ci turéem la am nañu ni déedéet ayr benn waay la waaye bu ñu ximaar ibnu muwayla ca yaman nee ñu moo amoon xuram woo xam ni ca la yàlla yebal safara mu lakk ko xisaam dikk na ci alquran xam ngeen falamma ra'awha qaalu inna la daalluun nee na arab ni nag axlaa min jawf jawf ci lugatu yaman moo di alwaadi mooy xur ñu ni axlaa moo gën a wéet min jawfi ayr ci xuru ayr ba am nañu ko firee noonu ala kulli xaalin axlaa min jawfi ayr léebu arab la moom léebu woowu la ràbb rek ah, wala tabi irdaka بيعة أبي غفشان بيع الغبن والتبلسق باع السدانة قصيا آخذا عوضها نحيا من أم زنبق dégg nga nee na wala tabi bul jaay irdaka sa der bayata abi xubsaana maanaam bay alxabni wa tabal suqi ah njaayum perte ana ah, saraba sax tabal suqi Ah. Ah, njaayu perte ah, bay alxamni wa tabarsuqi anamu wala tabi bul jaay erdaka sa der bay ata abi xubsaan a njaayu abi xubsaan benn waay la ci arab ci quraysh woon bu jëkk bay alxamni njaayu naxeel njaayu perte wa tabarsuqi ak nax mooy lan la defoon dafa junj xisa baa a dafa jaayoon si daanatal kaaba maanaam taxawee kilifteefu cëru cër yi Quraysh si daan mu doon ak palu aada gu ñuy palonte dafa ci am si kaaba ga am nañ ko xam ni siqaaya la daan féete woo ni Abbas ibnu Abdul Muttalib moom la féete woo aywa sidaana itam nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor caabi ja ñooy tëj ak tijji ni nga xam ne waa ñële fi Ousmane ibnu Talxata banu nan waxtu dana seen tur ci risaala ah, eh, baabu bani Cheybata waaw boobu nga xam ne Ousmane ibnu Talxata wiyee bu mag eh, yow mu fatku Makka mooy kilifa ga yoroon sidaana ga moo yoroon caabi ja tax eh, dañoo dem nangu ko ci loxoom jox yonen mu tijji kaaba ga ba mu ba def la muy def ba delloo la ko ko delloo waat jox ko ko ne ko maa ko jox kenn du ko nangoo ci yéen lu dul koo xam ne hiya lakum xaalidatun taalidatun laa yantasiuha minkum illa zalim hmm. ndeysaan ci definam yu rafet waaye mu ni nag ba ajaay na si daanaga te kooku pal gu rëy la woon ndax addiye alal addila yi ñuy indil kaaba gaa yooyu ku ku yor bi sa loxo da ca da koy amee awaale ah, mu dem nag jaay eh, si ga mu jaay ko xusay lu mu ko jënde lu ko xusay jënde ci moom aaxidan muy aji jël nexyan eh, mbuus min ummi zambaq ci sàngara e war daxaa remplacé si ga xanaa boom bëgg naa naan ba si ga gépp mu jaay ko ko maamu yonent Xusay ibnu Kilaab wala takun ka ashcabin fa rubbama talxaqu yowman waafidal muxarraq muxarriqi ah, wala takun bul nekk ka ashcabin mel ni ashcab tamaan waa ju siiw jooju ci tamaa te ngeen daan ko di ñu daan ko bokk dina ay xabaaram ashcab talxaqu fa rubbama talxaqu kon amaana boo bokkee boo boo jokkaloog maanaam boo bokkee ci e, yow man bis mën na am nga jot waafidal muxarriq ka doon gane ji lakkekat la muxarriq te mooy amru bnu hind ba nga xamee ni ab jarbaatam rey nañu ko ci bani tamim te mooy ci barajim mu géñ ne dana ca lakk pour benn bakkan boobu ndax ñoom ci xamiyatul jaahiliya moo leen jàppoon de eh, bi lislaam di kii dafa tere loolu dégg nga wa man qutila mazluman faqad jaalna li waliyihi sultaanan waaye nag fala yusrif fi lqatl na benn bakkan lañ ko reyal waaye na rey benn bakkan waaye danaa la reyal bakkan ngeen téeméer laay fayoo ah. mu dem di lakk di lakk ba lakk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent waaye mu ni rekk dee téeméer bi day mat ba mu demee ba gisatul kenn mu defee ni jeex na ndeke benn waay bu bokk ci eh, famille boobu mu ngi doon dox di tukki séeneen jàpp ko xam naa xiib na xetu yàpp yu xasoo ko mu ne eh, buur bi de dafa am gan yu muy berndeel nigal ma jaar fa dem mu ne ko yow foo bokk waaye mu ne ko man maa ngi ci tamim mu ne ko ayu tamim mu ne ko giir sàngam mu ne ban ban ci ñoom mu ni barajim mu ne ko ah inna shaqiya waafidul barajim nee na ku texee di day mooy ganu barajim daal di sànni leen ci taal bi ñu daal di ci def moom la ne kooku eh, waajooju tama séene moo ci xiir mu ne kon nag bul nekk na ka ashab wala takun ka waawi amrin zaidan fi lqawmi aw ka misli nuunin mulxaqi wala takun bul nekk ka waawi amri ni ki waawu amar zaidan di yokk fil qawmi ci gaañi na waawu amar ci ci ci lisim yi waaw ah, bu dikkee rek waaw nga topp ci langat moom tekkiwu ci dara ah, ja amrun nga def waaw fi kanam maratu bi amrin nga def waaw ci kanam raaytu nee waawu amar amul njëriñ benn naaru gànnaar eh, ci udabaawu Mauritanie nekk na ci dagana moroomi naaram yi yor seeni butig moom mu wut butig am muy dox di jooy loolu nag banaan muqaami fi dagaana bila dukaani banaan ka anni fi ljamaati waaw amrin wa hamzul wasli fi darjil kalaami mais su ma nekkee ci gaa yi ne waaw amrin laa tekkiwu ma fi dara wala mel ni hamzul wasli ci wax ju ñuy jokkale kawaawi amrin zaidan fi aw kamin aw kamis li nuunil mulxaqi wala nun gu ñuy jokk ci baat mu faf saboote baat ba ni ki dayfa ab xaaraankat soo ne dayfun ku tedd la ku ñuy teral la gan gi waaye nga def ca nuun boo ne dayfa nun rek xeebu na comme ni mu ko waxee ci maqaama xam ndax mooy xaaraankat boobu ganu ñaareel googu tafu ci gannaaw gan gi bu ñu ko laa tarjuwan safwan bi xayri kadari fa daala amrullahi lam yettafaq bul jortu ak sell ci àddina gu àndul ak dara lu cay nax kooku mënta am ci àddina lu la dara neex-neex ñaare rek am ca tuuti loon nangam de bu ci bokkul woon fa daali lam yettafiq dajee dajentewul ak kenn li ala amrullahi giñ naa ci dund yàlla ni loolu nee na lam yettafiq li ahadin kenn mosu koo mën a am Euh, wala wala taktum lil xaqi loolu déedéet la kooku laa yetasi laa taktum lil xaqi kenn hmm? wala taktum lil xaqi déedéet waaye laa taktum il xaq waaw yi wëccal waaw yi dindil waaw sànni wala laa taktum alxaq wa kun waqulhu ah waaye déedéet ma ne kii dafa dafa baaxut mbind mi laa taktum alxaq wa qulhu mulinan noonu moo baax wa qulhu damir da cee war a jokk ndax su damir ji dikkulit laa yustasi laa taktum alxaq wa qulhu mulinan fa huwa jamaalu sawtika sahsaliqi sah ci yow li nga sal faktum bul nëbb alxaq dëgg waqulhu wax ko mu'linan di ko aji feeñal siiwal fa huwa moom wax dëgg jamaalu sawtika mooy sa taaru sawt mooy sa taaru baat ak sax saliq buy aji xumb ah. laa taamani dahra ana lu ci taw ah fasix bihi shibha shabibin wa abi urwata wal abbasi inda zaaq Ah, wa sixbihi yuuxoo yuuxoo ko dëgg xumbal ko yuuxu ko wax ko ca kaw shibha shabibin mbir mbir mu ngay mel ni ki shabib ci xumb baat benn waay la wa abi urwata ba tey benn waay bu xumb baat wal abbas ak abbas ibnul muttalib ku xumb baat la yow ma xunayn ba mu woote te nit ñi nga xam ne ca awala wahla maanaam ci ci maanaam gannaaw bu ñu defee woon ni ñooy gañ wa yowma xunaynin id ajabatkum kasratukum e, ba nga xam ne ñu naan lan nuxlabal yowma an qil ah tey de defe naa kenn dunu nee na falam tox ni ankum cheyan falam tox ni kasrat maanaam falam tox ni ankum cheyan moom kasra bare gi aywa gannaaw ga nag suma anzal allahu sakinat nee na ba loolu daata am nag nit ñi ba ñu nga xamee ni euh, ne dan nañu leen song nag tiital leen ñu tasaaroo daw faraw mel ni ku sànk ci àll bi ba nga xam ni yonent bi moom ma ngi taxaw abbas taxaw fi moom ñu neewane fi moom mu ne abbas wool gaa ñi ndax ñu dikk fekk abbas rek mu amoon baatu xumb bu mu mën a woote nit moom leen bëgg a wax mooy abbas moo siiwa woon xumb baat mu daldi woote ca kaw ni leen dellu si leen yonent baa ngi fu waay nekk di dégg baatu abbas bi moom la ni rek na nga xumb baat comme ñooñ booy wax dëgg daal xumbal ko melal na xumbaayu baatu eh, Shabib ak Abu Urwata ak abbas laa tamani dahra fa inna xatbahu arshaqu nablan min rimat rumaati lxadaq ah anda zaaq maanaa fa yuuxu rek zaaq mooy luur ŋaax zaat laa taaman bul wóolu addahra jamono fa inna xatbahu ndax mbiram mu garaaw arshaqu moo gën a mën a jam nab nablan ci fett min rumaatil xadaq ci fettkati sànnikati fett yi xadaq rumaatil xadaq qawmun min mashuruuna bi rab laa tansa min dunyaaka xadan wa ilaa ka taalaqaani wal xasibin taliqi laa tansa bul fàtte min dunyaaka ci sa àdduna xadan cir sa wàll ci àddina bu ko fatte wan taliq demal nag ilaa taalaqaani ku mel ni taalaqaani alxasib ñu tabe ñu yaarame yoo xam ne ku dikk ak lor fi ñoom moom sa aajo faju da demal ci ñoom waadul mooy topp ka hammaamin banaati fikrati dannan biha an gayri faxlin mucriqi kay laa taquuna bi laquula bi lisaani xaaliha maqaala hindin alqi man lam yaliqi waadul na nga gàllankoor ka hammaam ni ki hammaam gàllankoore woon doomam yi bañ leen a denc loo bañ leen a maye ñu sëy na nga gàllankooral banaati fikrin sa banaatu fikri sa shay way eh, ni ki xamaam defoon ci banaatu eh, waladam yi dannan ngir nay bihaa ci sa banaatu fikr an xayri faxlin walis ku dul kuy lu cosaanu maanaam say way bu ko taggee kenn eh, koo xam ni kii nay buur wala ku tabe koo xam ne xani yu bu tabe koo xam ne yelloo na tagg daal waaye bu ko def na nga ko gàllankoor comme ni xamaam gàllankoore woon na doom yu jigéen yi ni daal du ko may lu dul jëkkër ju ci yàlla kay laa taqula ngir mu bañ a wax sa banaatu fikr mooy sa xasaayid yi bi lisaani xaalihaa ci lamiñam wi nga xam ne mooy xaalam rek mu wax ma qaala hindin comme la hindi waxoon ne alqi waccal man lam yaliq kay yellul maanaa jëkkër ju naan doon teewul ak man wasalmuhoora kindatin in tohdihaa lidin nadaakal baxri fi tadafuqi wasal boo wasal laaj nag soo demee ba gis nawleem boo may sa banaatu nanga laaj mu laaj muhoora kindatin kani kinda waaye xam nga day ishaar ay qisas rek ndax dafa bëgg boo gisee ishaar du lu muy jëriñ dafa bëgg suñu ne na def na xamaam ci ki nga ne waa moo doon kan mu laaj yi wala nga jàngi ko wala nga yëri ca téere aywa mu neeti mu ngir mu bañ a wax la hind waxoon nga ni mu hind mooy kan ak loolu lu war a loon wax loolu lañ ishaaratu xisa loolu lañ ci bëgg mu ne laajal mu hóor a kind kan mel ni kind foog nga bëgg a xam ki xabilatu kind mooy xabilatu imrul qays est ce que ñoom seeni cani jigéen dafa gënoon a can cani nit ñi ba ba am siiwte googu yooyu mooy isaaratul xisa loolu lay jëriñ na nga laaj can yu mel na cani kinda giiru imrul xays in tuhdihaa soo ko dee joxe lidi na daa ñeel boroom tabe joo xam ni kal baxari ma ngi génne géej fi tadafuqin ci wal ga muy jëñu di wal nee soo dee joxe sa eh, xasaayid seeni bu ñuy maye seeni doom laa ju man man lam yuta ju man ataa ila saraabi biddilaa'i yastaqi laa tahju dëgg waay bul jekki di xas man lam yuti kat joxe ka nga ñaan mu nay bu bul jekki di ko def hija di ko woy di ko xas wahju xasal sooy xas man ataa ka séeneen bay ñëw ila saraabi ci njanoox yastaqi di wuta root bi di i ci baat ku dem fi maanaam ka dem ci ku nay kudul joxe dara yaakaar mu jox la kooka bu ko ŋàññ na ŋàññi boppam moom moo ko def loolu feddali ŋàññu kooku la kat léegi bu fekkoon nit dafa ñaani diw diw di ku ñu xame nay waaye dajeeg moom naan ko diw kat deful dara kat yow mii yow mii koy yaakaar di ko ñaani yaa ko def seetal kooku feddali na xas boo ñuy xas diw ki xas diw sax moo tane ki naan kuy ñaan diw jaru la diw jaru la xas ku koy ñaan moo jara xas kooku ni mu xasee diw moom kenn xasewu ko ko moom na ni ko ne laa tax jubul ŋaaññi man lam yoxti ka joxewul wax ju ŋaañal man ataa kay ñëw ila sara bi ci njenoox yastaqi di jéem a root bi di laa i di wut lu mu naan bi di laa i ciy baag waut li maa uwitta min badli luha fal awdu ahmadu li kulli mumliqi waut dellul li maa uwitta ci lañu la tàmmaloon min badli luha ci joxe ay may luhaa jamu luhwatin cosaanam moo doon dogu dugub ci gën gu ñuy dëbb wala raxaa gu wala lañ ci sóobe benn lu yam loolaay luhwa wa minhu bi maana dañ luhwatu bi maana al atiya dégg fal awdu dellu ahmadu moo ëpp moo gën a baax moo ëpp ak cant moo gën a santu li kulli mumliqin ci képp ku ñàkk fal awdu ahmad masal la doon nañu ko tudd ci maqaama abbas wala taud bul dellu li xar bi man man na pour di xare jeeg kala jéggal walaw man na su la ko xobe woon sax bu woon man doo am nanga bu woon man doo am nangam fa maa xalla joñut yadan loxo banku ko takk ka mutliqin na ko boyal loxo ka ko yeewi bàyyi keneen ku ko yeewaat ku ne kookaa la ko dàq ka ko yewi woon jéggal ko ku ko yeewaat moo la ko dàq amul kenn ku ko mën a bank ku mel na ka ko boyaloon wala euh, wala yunabbi uka mislu xabirin seetal boobule waxin bala kenn du la mën a xabaar ku ca mel na ka xam ku la mën nettali ah, du tax mu mel na ka ko xam dëgg moom mu la nettali woon fa maa xadda yadun ka mutlaq ku mën a bank loxo mënu la mel na ka ko tàllalu ka ko yewi woon jéggal xisa bu mu junj ci xajaaj euh, ak waa ja mu jéggaloon tudd na ko foofu ci saraab bi ba mu tam waa ja mu jéggaloon ba am yu mu ko may ba mu demee euh, ci xawaari ñuy fexe nu mu dellusee naan ko yàlla moo la xettali ci xajjaaj bu mu la tee nan dellu mu mun leen deewalaay wax leen loolu mooy leen ca la cosaanu maanaawu jóge ah, wal awdu dellu yuxtaaru danañu ko tànn ala man kaana kal muxtaari ka mel ni muxtaaru saqafi boobu moom it ci bani saqif muxtaar moomu nga xam ni eh, maanaam kéefar la na bu feeñaloonu njulit wa man kaana képp ku nekk zaata sanduqin di boroomu sendiq boroomu nifaaq nëbb kéefar feeñal njullit ci kaw comme muxtaar ak képp ku mel noonu kooku la ñu war a dellu ay jojj ay xisas anahuma xisnun lil fata min arrada wa qalla man charra lisaanihi wa sumtu bu la neexeen samtu muy masdar ba tey sumtu maanaa lisim la samt ba tey masdar samata yasmutu samta wa sumtu noppi xisnun sangi la lil fata ñeelas cam su ko mën a musal min a rada ci alkan wa qalla néew na nag man koo xam ne wuqiya fegal nañ ko charra lisaanihi dégg nga dafa am assumtu xayrun wa qalilun faa'iluhu wa in wajadta lil kalaami mawdian fakun fakun iraaran fiihi aw ka aw kalash maanaam wa in tak wa in wajadta soo demee ba fekk soo noppee da ngay noppi rek bul wax daal te wax jotul bul wax fudul sa place waxukaay ak sa tàng waxukaay wa in wajadta tàng boo fekkee mawdi an place lil kalaami ñeel wax ca tàng ba ak palaas ba dégg nga te mu jar ko fa ko nekkal fii waxkat ka iraana comme iraar ci waxkat ku ko xam ni dafa ko junj xisa pour ñu laaj iraar boobu nu mu meloon ci mën a wax hmm. Hmm. dégg nga hmm. xisaam mu ngi foofu ci sax iraar aw ka las daq wala nga mel ni las daq waxkat yooyu soo demee bay wax nag bu boo demee ba wax jot nga gis foo war a mën waxee na na wax bu baax a baax loolu la bëgg wax wala tansa ma awsaa bihi albakri axan fa huwa sadaadun fi fa bihi charrata wala tansa nga waxa loolu laa tansa waaw wi na dañ kon bu ci waawi ne du la yëttasin laa tansa ma awsa bul fàtte la nga xam ne dénkoon na albakriyu la mu dénkoon axan mbokk bi ci moom fa huwa moom sadaadun am njub la fa taqi na nga wattandiku charra haw ay bi ca dénke boobe dégg kooku dafa junj qisa Abdou Malik ah. albakariyu Moussa ibnu Jabir xanafi nee na Abdul Malik dafa bindoon xajaaj dégg ni ko nanga nga ko dénk ak njàmbaaram boobu mu ni ko dénk dénk bakari yu ba mu dénkoon mbokkam ma doyoon na la abba ajaaj fekk teewluwul loolu xamul boobu dénke ban la nee na mu jaaxle jaaxle daal di xaaju ci mbooloo mi leen e, ana ku ci xam lu bakari yu dénki woon mbokkam danaa bu dikkee ma faj aajoom su ma ko waxee ma faj aajoom ndax li ko kilifaam gi Abdou Malik ibnu Marwan ki nga xam ne boobu mooy amirul muminin bind xajaaj bi nga xam ne amiru iraqam la ni ko nag doy na la la bakari yu dénki woon mbokkam ma doy na la xajaaj nag jaaxle xamul loola mu woote ana ku ko xam rek ma fajal ko aajoom benn arabi yu dikk waxal ko ca baytu woowu muy nettali ana ndax jeex na këyit wi mu ngeen mujj jox de ah ah nee mu ne ko qultu li zaydin laa tusarsir fa innahum yarawna almanaya duuna qatlika aw qatli fa in wadaxu xarban fadaha wa in abaw fa ordatu abdil urbi misluka aw misli mu ni kon loolu loolu war na la doy baytu woowu li ci ne ci jàmbaar ak muxaatara bi nafs loolu doy na la fekk loolu la xajaaj bëggoon ah mu ni walaka fi man kaana misla al amawi yi uswatum bihi iqtada kullu taqi walaka fi man kaana misla al amawiyi uswatun ittaqaa kullu taqi waaw eh, walaka ñeel na la mislul amawi walaka ñeel na la fi man kaana ci ka nekk mislul amawi ñeel na la uswatun fi man kaana ci ka nekk mislul amawi iqtadi bihi kulla tax amawi yu boobu mooy kan a aywa yusiru ila qissati al amin wal mamoun ibnay rachid lamin ak mamoun ñaari doomi haroun al rachid nee na dafa leen a nattu teewal leen fexe ba boole leen pour ñu jéem xeex mbaa bëre mbaa yooyu di seet ku ci man nee na amir daldi amin daldi gaaw jëm ci maamun doomi bàyyi amin nag yaayam haachimiya la maamoon nag yaayam jëbeer la woon aywa waaye nag bu dee najaaba day ah ma amin la ko yàlla defoon moo taxit la mujj ci seen diggante ah seen gannaaw baay mooy xare xare ba fa maamoon rey ko maamoon nag moo doon ku bëgg xam-xam te bëgg boroom xam-xam yi moom buur la woon waaye aalim la moom ci boppam boroom xam-xam yi dong ñoo doon nekka Lamine nag nooskat la woon moom Mouhamad Lamine mi yaay ji ci Bani Hashim la bokk mu daan damoo loolu ci kawam naan ko lam yaaraq fiya eh, damul ima maanaam man dereti jëbeer musta ñàq ci sama ci ci man seetal yaayam la ko doon ñaan ah, nee na mu dal ci kaw maamoon maamoon teey rek moom ku bari sago ah, ba summa amarahuma an yatasaara'a mu ni leen na ngeen bëre fa wasabal aminu nee na wa sakkana al maamoon mu ni leen kon kaay leen bëre lamin daal di tëbbëgg song maamoon ni tekk rek wa qaala lahu rachidu maa laka laa taqdam axafta axifta ibn alhachimiya mu ne ko waay yow maamoon lu la tee jóg ndax danga ragal ibn alhachimiya bi yaa ji ci bani hachim la bokk qaala lam axaf ragaluma ko wa innama manaani qawlul amawiy li bani mu ni ragaluma ko sax de li tere day mooy la ama yu waxooni doomam ji nga amawi boobu nag ki moom la naan wala ka fii man kaana misla al amawi mu ni kon amawi lu mu waxooni doomam mu ne ko dafa ni anfu daxaa'ina baynakum wa tawaamu inda al abaidi wal xuduuri shuhadi fa bisalaahi daati lbayni tuulu baqaa'ikum wa isaarukum bitaqaatuci l afra wa bitaqaatucin wa tafarrudi ba bayt yooyu jeex bàyyi bi ni ko askay kooku nee na amaw yi ba doon waxi doomam ni leen na ngeen dindee ay noonoonte ci seen diggante da ngeen dëppoo fi fi jàmbur yi ak ñi leen di teew fi yéen ci da ngeen xam ne jubóog seen zaatu bayn seen diggante ci la ci la seen baqa ci la seenu des di ame de aw seen jàppeel ak seen